الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ndokkeel noo ngi leen di ñaanal ci weeru tedd wi nga xam ni moom lañuy génne yàlla yàlla nangul nu sunuy jaamu yépp nangul nu sunuy koor nangul nu sunuy naafila ci barkeb Sëriñ Tuubaa noo ngi leen ciy ndokkeel bu baax di ñaan yàlla nu fekkewaat ko ndëgëni déwén te mu ànd ak dal ak tal loolu yomb na yàlla di yëkkati ay kàddu rek yoo xam ne baaxoon nañ koo yëkkati ci bu bis bu mel ni bis mel nii bu amee kàddu yi kàddu yi rek lay doon kàddu yi soññee rek lay doon ci li ñu fi indi te bàyyi nu fi te mooy diine lislaam ginnaaw dañoo waroon di daje bis bu set di ko waxtaane wala weer wu ne ñu di ko waxtaane bu munta am kon war na at mu neenu di ko waxtaane ba kenn ku nekk yóbbuloo ci loo xam ne su sa xel demee sa xel delluwaat gannaaw yokkaat sa ngóorgóorlu xam ngeen ne nag jamono bii nu toll jamono bu metti la bu doy waar la mu di sargal imaam ak imaam yi yépp ci seen taxawaay yi mettik jamono taxu leen a dellu gannaaw taxu leen a yox yow yox yoxi taxu leen a bàyyi lañ jàppoon kon noo ngi leen di sargal bu baax te di leen ñaanal yàlla na yàlla kàttan leen te dëgëral leen di siyaare tey sargal tey ñaan tey ndokkeel Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na yàlla dëgëral ko te kàttanal ko kilifaa ngi noonu gu mat kilifa bu doy yaakaar gu dal xel goo xam ne gi képp koo xam ne mooy sa kilifa te nga dëggal sa diggante ak moom sa nag sa lépp ay jag mate na ko ci wàll yépp yàlla na ko fi yàlla bàyyil te dëgëral ko te kàttanal ko ba li bëgg a liggéeyal lislaam bëgg koo liggéeyal yoonu murid bëgg koo liggéeyal sëñ Touba yàlla defal ko ndimbal ba mu àggale ko na mu ko bëggee ba naal yeneen naal ci barkeb sëñ Touba yàlla man na ko yàlla na ko def di sargal bu baax boroom xam-xam yi ndax mettik jamono taxu leen bàyyi taxu leen dellu gannaaw tàmbalee ko ci al muqaddamatul xidma bi nekk ci jumaa ji taxawaay yi rafet na lool yëg nañ ko wante alwafa bi nekk daaru moxti taxu leen naqari jamono taxu leen deltu gannaaw al minanu euh, al académie minan bi nekk euh, daaru minan bu sëñ Muntaxa seen taxawaay gis nañ ko julli yëpp yëg nañ ko kon nañu xam ne forotul ayni bu kër sëñ bu wala yëg nañ leen bu baax daaru salaam yëg nañ leen bu baax mboolem jàkk yi gédde fu fi waay nekk te doon yëngu yëg nañ yëngu bi bu baax tax na suñ xel dal bu baax xam nañ ne naqarik jamono ak i jafe-jafe ak i tartar du tax mukk ngeen bàyyi seen